li jot jot na ñun Sénégal dañu wara dundé lañuy la ñuy bay te boulangerie Sénégal mu nekk patch bu am solo ci lolu ñu ni kon buñu jëlé liñuy li ñuy bay mooy dugub beeg mboq mi dugul ko ci mburu mi mën na jur lu bari manam mën na fexé suñu baykat yi di mën a bay lu bëri sunu industrie sunu jigéen yi ak industrie yi di mën a defar farine bu jox ko boulanger yi boulanger yi aussi jëfal mburu bu mucc ayib jox ko askan bi askan bi aussi accepté dem jënd mburu yooyu ci boulanger yi chaîne de valeur boobu moo taxaw ñu ni ko waaye ñu ne pour loolu mën a nekk nag ni mu jaare yoon faw ñu am lu ñuy wax base juridique maanaam faw ñu am lu mel ni décret walla loi ñu jàppoon ni nag amoon na fi benn décret bu fi nekkoon boo waxoon ni 1979 yéen boulanger yi par la force da ngeen war a dugal 20 si li ngeen di dugal def mburu loolu mënu woon antu ndaxte boobaa Sénégal parewul fi mu toll nii may wax ak yéen Sénégal nekk ñu wax fin prêt pour que ñu waxtaan pour comité bi bi ñu nar a créé nii ñëpp ñu si yëngatu ñu toog waxtaan ak ñun pour que ñu xool ban yoon la ñuy jaar le ministère du commerce d'accord porter un décret pour nous mettre au président de la République pour que nous puissions nous changer. changé ce qui ñu si jublu nag nekkul décret pour imposer Boulangerie ou wala impo askan bi décret a une réflexion lay nous maanaam danañu au Sénégal pour voir par exemple que boulangerie a am ak ñu le def def laboratoire ñetti fan par exemple ni ah, est-ce que vous avez les 15% ou dina ou prévision yoy def jox ministère du commerce ñi nga service juridique façon de créer lañuy pour industrie yu mel ñi nga ni ah investir si usine bo boulanger farine complète maanaam farine boo xam ne da ñëw rek def sa mburu mu jeex maanaam farine bi am na dugub am na mboq am na nebedaay da nga ñëw rek jam ko il faut que baykat bi aussi sentir ni ah man kat su ma bayee danaa am ñu koy jënd donc loolu nag ñun réforme bi moo ko mën a booster maanaam moo moo tax bu ñu gisee ni am na décret rek danañu ah kon kat man te maa préparé d'ici un an deux ans trois ans parce que li ma wax moom du dañ su dee yéen consommateurs yi bëgg réew mi. moy li wax pas de... fexé ba industrie yi des di jox comme boulanger yi mburus mburus composé yi jënd parce que képp ku si jënd mburu dimbali baykat parce que pour leen comprendre tey ya nga 200 000 tonnes importation si blé en 2000 nous bëgg dem tey à 800 000 tonnes 2030 nous avons a ay 1 million d'importation wala 2050 à 3 millions de blé Oui lol nak il faut ñu am wut que nous koy pour que nous a dem suñu balance commerciale